ñetti ko yu mag ci menn mbalka fële ca Arabie Saoudi match baa ngi tàng jëpp capp-capp yi commencé na caa am dinañ ci dikki léegi ci xët woo xam ne woo yaatoo yaatu la beneen bi Aliou Cissé c'est confirmé ci liñ leen ci doon wax lu bëree bëri danañ ko yaatal bu baax a baax Pedri danañ ci ñëw ñëw ci li nga xam ne daanaka mooy Franck Garcia ñëw ci lu yaatu ci yeneen affaire yoo xam ne sax daanaka ay surprise la gars yi Aladji ci kàddu gi ñu gërëm leen sant leen abonnement yi bu leen ci des ginnaaw maanaam defar sab abonnement yow mi di ma suivre ngir lépp lu nu duggalul nga mën ko coppate ndànk ci information yi wérte wóor yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen bëgge ak mere ngay cant ak ngërëm ñeel na leen maa nga noonu ne ndorteerug li nga xam ne mooy xibaar yi dañ koy commencé dëgg-dëgg bu ñu neexee ak Pedri mi bu ngeen xamee ne blessé na blessé boobee nag waxoon naa leen ko fi nekk ni maanaam teref yi dana jeex tàkk loolee lu ñu mën a confirmer tey ji ci li nga xam ne mooy journal yu bari na ca Espagne confirmation totale moom mii di Pedri match sax bi Barcelone war a football ci super coupe d'Espagne bi moo ko Osasuna la 11 janvier prochain foofee ca daanaka moom gone gi sax du dugg ca match boobee du ca bokk bu amul sens ab supporter la fay doon jeune espagnol devrait être retour avec le Barcelone à la fin du mois de janvier bi nga xam ni moom lañ mal maanaam 11 janvier bu ko ratee kon njobbaxtalu janvier ga maanaam ay la 25 ak ay côté yooyu noonu boo xoolee weekend bi lu mu leen jox nag foofee mën nañ ko faa xaar mu del ci baax baax gonda ndar ca terrain yi nga xam ne moo nekk ca Espagne xam naa supporters yi bëgg ngeen ko lool te it yéen koy xaar bu baax a baax ndax dana nekk loo xam ni lu ama am solo la waaye dina dikkaat pétiri 2 pour cent ci Barcelone sondage yu bëree bëri gone Espagne yi dañuy fon sondage waaye nag lañ leen mën a xamal mooy bu ñu doon laajte Barcelone ñaari xale yoo jël ba ñett di leen laaj championnat bi ndax Barcelone ren jii mën na koo yebbi daanaka téeméer boo jël ñaari doomu aadama seen ñoo ci xalaat ni Barcelone mën naa def remontada waaye lu nga xam ni mooy juróom ñeen fukk ak juróom-ñett yëpp amuñu confiance waaye sondal boobee sondage boobee dama koy daaneel xalaxee ko sànni ko fële ndax Barcelone mën naa def sax lu ñoom musuta xaar ñancoo international sama waa ji seen waa ji bi al ittixaat di footballal di dalal al Nasser match boobee fi mu toll nii mi lu toll ci fukki minute juróom-ñaar danañ moo am benn big boo xam ah, ne ah, ka ko dugal moo nekk Hamdallah Hamdallah ki ko jox ay ginaar maanaam passe décisive décisif mooy kii di Moustapha Karim Benzema voilà Karim Moustapha Benzema bi nga xam ne moom it titulaire na doon capitaine capitaine euh, Cristiano Ronaldo image bu daw yaram image la boo xam ne ñoom ñaar ngeen gis leen kenn comme ci man di doon seen xel dana dem fële ca Real Madrid ñëpp bi ñu fay coppati seen bànneex ca équipe bi nga xam ni kii di Florentino Pérez moo ko yoroon di président ba nga xam ni loolee amoon na solo bu baax a baax tey jii nag ñuy séddoo li nga xam ne mooy équipe kenn comme ci man di doon nekk ci bii équipe kee nekk ci bii équipe kee doon capitaine kee doon capitaine mu nekk image boo xam ni bu daw yaram ñaari capitaine yi nag daje nañ ci digg géew bi weccoo ay drapeau ci diggante France ak Portugal ci diggante fi nga xam ni mooy Portugal ak Espagne ci diggante France ak Arabie Saoudi loolee lépp ñu mën koo dëxëñ ci genn ngoon goo xam ni ngoon la gu daw yaram ngoon goo xam ni gu mondial football mondial nag match bi mi ngi daw ni ma leen ko waxee fukki minute juróom-ñett séngam al itihad bu Karim Moustapha Benzema pour l'instant daanaka moo xaw a ubbi li nga xam ne mooy score bi ci digganteem ak Al Nasser bit ba nag wax naa leen ko léegi ka ko dugal mu nekk am solo bu baax a baax Karim Moustapha Benzema moo def passe décisive ba bu ñu jógee foofu dañuy jëm ci Sporting Giron goneem gi nga xam ne mooy Eric Garcia ne devrait pas être revenu au Barça nga xam a jàngat mooy maanaam moom moom it di gone gi du dellusiwaat fi ci Barcelone dan naan ko ciix foofee ca Sporting Xiron ndax lu tax loolu mooy gone gi ma ngi koy gis boppam te it mi ngi dugal ay bit mi ngi coppati bànneexam mbégte mi nga xam ne bëgg na ko ci wàll football meilleur ma koy mën a am foofee kon daanaka benn sens amu ko pour mu retourner waat ca ancien club am bii Barcelone xibaar boobee ñu ngi ko jëlee ci sport bi nga xam ne yaatal na ko bu baax a baax journal yi ni jëlee ay xibaar fële ca Espagne nag dañ koy segg di ko seggaat te journal la yoo xam ne yu ñëpp jox ca Xiron it gis ngeen ni doxale ci li nga xam ne mooy ubbite bile les saisons dañuy jógee foofee ci xiroon daal di dabbar ñi dem fële nga xam ne daanaka mooy équipe bu Alioune Cissé ci Sénégal lay ñëw maa ngi dakaar Plateau Alioune Cissé laay commencé ci li nga xam ne mooy ay mbiram mbiram Cissé ngaar yi ah, ñu mën a jàngat ci moom ni ah, fi mu toll nii juróom benn weer séngam lañu leen doon xamal daanaka loolee mi ngi bëgg a confirmé wu yum laalul cent franc ndax moom moomee ah, daanaka ñi ngi koy fay salaire mensuel bu toll ci maanaam vingt millions de francs chaque weer loole tamit bu ñu mënee gëstu ni 20 millions de francs bu fekkentee ni juróom-benn weer séngam joxunu ko loolee alal la joo xam ni mën na cee tabax ay état si état Keur Massar ndax dana toll ci 600 millions dañu xamul na contrat ba la ca ne ndax fi mu toll ni daanaka jamono yi nga xam ni euh, Coupe d'Afrique bi jeex na ba tey ji ak jamono yi nga xam ne daanaka Sénégal bariwul yi match ndax damaa jàpp ni su fekkentee ni toog nga entraîné wo demoo dikkoo ndax weer yooyu dañ la koy fay bu dee ci tubaab yi la weer wu ngeen mën di waxante ci contrat bi da ngeen koy fay ban mat sëkk nag waaye kon loolee war nañoo jox Aliou Cissé xaalisam tey jàpp naa ni euh, bu ñu ko joxul lépp bala moo teg tànkam fële ca Côte d'Ivoire danañ ko compal loo xam ni lu ama am solo la yéen ñi ma seetaan xam ngeen ni yënuwul maanaa bala moo dem euh, dina ko gars yi am lu teg ci loxoom mu door dem ndax pël boo xam ni daanaka dig na la te lim la dig joxaguloo ko doo ko mos a nangu match Al Ittihad Al fii may wax ak yow euh, ci ñaar fukki minute ak benn sëngam Al Qatar maam Al Nassr def na li nga xam ne mooy ab égalisation boo xam ne léegi lañ ko def égalisé boobu Ronaldo moo xam ne moo nekk penalty boo xam ne léegi la ba ñu bàyyi leen mu daw ñun ñu dugg faneen Lamine Camara di international sénégalais jaar fële ca génération foot di leen xamal ne nag Lamine Camara lu ñu bari xamul ma nga jóge fële ca Ziguinchor ci Casa Sport dem fële ci euh, équipe bi la nga xam ne mooy équipe bu dani Biram Ndaw mi xamal leen équipe boobee formé ko waaye daanaka fi te taxaw na temm nag pour s'attacher les services international sénégalais bii nga xam ne ma nga fële ca FC Metz di fa doxal bu baax a baax si nag gis na ni war na ko mën a ñu di mu daal di ñëw foofee daal di fay football loolee du métti benn yoon ndax Metz li ñu soxla mooy xaalis te it dañuy formé di jaay football kat ba nu gis alal joo xam ne ju mucc ayib la dañ lay coppat ndànk yóbbu kon moom moom mais bu fekkentee ni information boobee ni nu ko gëstoo ba wéral ko noonu la demee war naa mën a dem foofe wane mbégteem ci wetu Nicolas Jackson ndax mu koy mën a paas ay décisif yoo xam ne yu ama am solo la ca championnat ba ne ca Angleterre ndax niveau dëgg gone gi war naa romb France te it war naa mën a doxantu gundaandaat fële ca championnat Angleterre championnat Angleterre du ñu ko jeexale waaye dañuy jeexale championnat bii sukkandikoo ci marka yëglekaay daanaka tey jii ci site internet bi nga xam ne moo ëpp doole fële ci réewum Espagne andi na juróomi footballkat jàpp ni ñoom ñooñee ñooy nekk li nga xam ni moo nekk euh, sueur de mois kenn dinañ ko ci tànn ci ñoom ñaar ñu mën cee tànn nag ñin ci coppati ci kanam ma gis kii di Toni Kroos milieu euh, pied droit bi nga xam ni passe décisive ci gone yi bokk na ci ko fa dàq tayit man ca lu gaaw a gaaw keneen ki nga xam ne tamit ndeysaan euh, Bayern Munich loolee am solo bu baax a baax moom it mi ngi ci biir course bi keneen ku ne ci course bi Luka Modric di ab croate moom it daanaka nekkoon na fële ca championnat Italie Inter de Milan jaar na fa di croate boo xam ni milieu terrain moom it pied droit bi bi keneen Rodrigo euh, jóge fële la euh, bu a baax keneen ki a baax mu nekk kii di Brahim Diaz international international marocain boo xam ne bokk na ko ak équipe bi la di France loolee tamit lu ñu mën a séentu ay ngëneel ñoom ñooñu ñëpp boo leen boolee tànc leen ci benn roq kenn la ci marka war a rocc ak waa Espagne bu ko defee mu nekk joueur du mois bu fële ca euh, équipe bi la di Real Madrid mu am solo bu baax a baax ma gërëmaat leen sant leen ànd beeg ñun Aladji TV am na solo